waxtaan bi nag dañu ñëwoon pour indi ay leeral quelques éclaircissements par rapport ak sortie bi nga xam ne sëñ Abdou Samad def na ko euh, bërki démb di wax ne dafa génn ci Pastef Touba waaw ba ñu gis presse bu bëri titré na euh, un grand responsable jóge na Pastef Touba am ñu dem ba exagéré sax na cerveau de Pastef Touba dem na muy loo xam ne lu ñu reetaan loola euh, ndaxte moom occupé wul benn post de responsabilité ci Pastef Touba bokkul ci benn commission carte de membre sax amu ko bu fekkee am na ko na génne ñun ñëwee suñu suuf yëpp donc defe naa ne partie bala nga caa bokk il faut nga am carte de membre te moom mësul jënd carte de membre sympathisant la. beneen bi ci topp bu ñu nee cerveau xanaa cerveau day am ñaari nit ci ginnaawam te wax dëgg yàlla gis nañ ne amul benn cellule bu mu mës a installé Pastef Touba les militants de Pastef Touba dix pour cent xamuñu kan mooy sëñ Samat. donc je pense que loolu moom euh, comme ni ma ko bindee bërki dem rek marto bu mu dóor ñi ko financé la yoon mu ku ci nekk xam na ne daa am nu muy doxe te ñun ci politique lañ nekk waaye yoon wi ni muy doxe suñ kilifa la ci ndax suñ la ci yoon wi waaye li Babacar wax du ma ci dellusiwaat ci dara ndax lépp yaakaar naa leer ndax parti politique muy association muy kuréel gu mën di nekk bala nga caa bokk daa am lu la ay boole la la cay boole d'abord mooy am nga am carte ba carte ba wa nga xamante moo composé fe nga am ko comme ni ñu ko ñëpp waxee moom kilifa moo ko boole ndax ñëpp xam nañ ne sëñ daan mbàkkam Cheikh Abdou Lahat doom ju mu tuddee doom ju mu tuddee nijaay Ousmane Sonko ju bokk ba yaayam ndey ak baay bu doon dund sama moroom la kon relation diggante sëñ daan ak Ousmane moo jur relation sëñ Abdou Samad ak président Ousmane Sonko muy relation boo xamante ni du relation bu sori ndax ab relation li koy dëgër mooy di wootante di gisante te ragal na rafet naa njort ne bi ñu gisantee kër sëñ daanum sëñ Abdou Lahat tënk fa la ñu tënk mu jógewaat fi ma ànd ak moom ci otoom ñu dem ba Dakar président Ousmane Sonko recevoir du ma ne président Ousmane Sonko recevoir ko mais moom mu recevoir président Ousmane Sonko ndax bi ñu agsee li may wax àdduna bépp a ngi koy di ko dégg moo woo président Ousmane Sonko ne ko sëñ Abdou Samad dalaa bëggoon a gis mi ngi Dakar mu ne ma déedéet sama kilifa la ndax man ko bokk ci Sëñ Tuubaa sama kilifa nga nii la ko waxee hmm. na ma wax fi nekk ma déplacé ñëw fekk ko fa ñëw këram fekk ko fa ñu waxtaan lu ma deux heures temps boobaak léegi gisuma loo xamante ni Abdou Samad def na ko ci parti bi muy moyenne muy carte de membre muy dara kon kooku moom mën naa jàpp ne bokkul ci parti bi kon nag comme moom jàpp naa ne leer na nañ te boobaak léegi diggante 4 mois lay def te 4 ku a taxaw daane mas ko gis ci benn activité Pastef boo xamante ni Pastef def na ko bu kon jàpp naa ne di euh, couvrir événement bi toll noonu naan Pastef Touba perte na ak ruwam xanaa ruu doo ko perte 4 jours di ko ne dox ruu kay koo perte da dee te Pastef Touba mi perton room 4 jours dèjà mi ngi ñëw fi def conférence presse kon loolu wax ju yàqu la man li ma jàpp ne moo moo moo normal ku ci nekk am nga droit bu fekkoon ne dafa def point de presse rek war ne nekkoon naa sympathisant Ousmane Sonko bàyyi naa Ousmane Sonko dem doore ñu gis ñu def point de presse d' sax kon duñu ko jox benn importance mais li tax ñu def point de presse leeral mooy li mu di waxaat ci point de presse bi wax euh, mu ko bàyyeeg léegi sëñ Mountakha rôle bi mu ci joué naa ñëw delloo ko njukkal sant ko gërëm ko may xamal ne moom du point vocal président Ousmane Sonko ci Touba du coordinateur am ñoom ñaar duñu wax téléphone. kon li Ousmane Sonko di séq ak Serigne Mountakha loolu dina ko ump du ko xam ba adduna nekk it te président na fi ko teg Ousmane Sonko it xam na fi mu teg kilifa diine yi nekk fi sax naan Ousmane lii la séq kilifa diine ku ci nekk jàppi nga ko comme sa doom jàppi nga ko comme sa taalibe jàppi nga ko comme sa loolu mooy leer te mooy li dëggu ndax damay faral di wax bis bu yàlla sàkk te kàddu yu ma gëm la Ousmane Sonko président Ousmane Sonko borom deret ju wicc du ko contre loolu mut nekk c'est impossible ndax homme politique boo xamante koo xam ne moo la ñor kooku amoo droit contre ko wax ne tout le temps rek àdduna moom nii lañ ko man nii lañ la mas di nekke day am ñu ne fii am ñu ne fee ñun fu waay nekk dañ la koy respecté bàyyee laak fa nga nekk waaye rik bu politique tax ngay wax loo xamante ni gëmoo ko wala ngay wax loo xamante dëgg man nag jàpp naa ne lépp comme ni nga ko waxee am na lu ne ci gannaaw li ne ci gannaaw it mooy la neewoon ci gannaaw ba Ousmane Sonko yëngoo ba léegi ndax bu ñu am na ñu naan wooye ay imam ay certain imam ñëpp yaa ngi fàttaliku ñu génn di ko attaqué naan ay salafiste lañ ñooñu ñoo ne ci lii gannaaw rek imam yoo xam dañ leen du man dañ leen rajo sax mais dañ leen dàq fa ñu daan jiite ñoo fi nekk ay courtier marabout ay ay président ak ay ay ay ay Marème Faye Sall li ma bëgg wax ki may wax la xam na boppam te dina leer ci moom duma ko tudd imaam yoo xam dañu leen rajo fañu daan liggéey ca bitim réew ñu ñëw fii nekk ay ay ay recrutement lay wax di recruter ay nit loolu dafa dafa salte ci réew mu normal surtout koo xam ne imaam lañ lay wooye waaw man lay wax am na li may wax yéen a may jël noo ne ko mën a camara yi baax na waaye imaam yoo xam dañ leen tudde ay imaam nga xam dañu leen dàq fañu daan jiite ñu ñëw amul amul dara lu ñu war a def lu dul topp ñaari sagar nit ñoo xamante ni ñaari at ñoo la fi des wala ñetti at di leen dungur di leen jàppe comme yàlla loolu lu jaaduwul la lu normalul la lii nag xam nañ li ne ci gannaaw bu affaire yi continuer dina am yeneen révélation yoo xam ne dañ ko génne ak moom foofu dama bëgg li ñu def ñu arrêté ko xam ne Pastef toi mënu ci yëngalu toll ne virgule ndax parti la boo xamante ni depuis 2014 ay góor leen dara proposition bu dul proposition junne ñu ngi koy proposé waa bureau bi Babacar daa baax rek waaye moom mii di wax passe bi mu yor muy Pastef Touba officiel donc fay nañu ko ci 10 millions pour mu jaay passe bi pour ñu saaga ay kilifa diine war ne waa waa Pastef ñooy saaga kilifa diine yi kon am na ci loo xamante ni moom du jàll ndax ñun damaa jëlee bu passé bu passé sëñ Touba gi sax ñun suñu maam yi ay caddu lañ Lat Joor mooy sama maam deret ak Buuna Alburi Njaay kon kooku képp koo xamante ni luy matt gor bu ko séenee day ŋaang man sama njëkk kenn amu ko ndax damaa képp koo xam ne da ngay proposé nga dem proposé ci ñuy jaay nga dem jënd leen reere ruuy ak ak sombi moom a gën a ma war Ousmane Sonko ci caméra laa ko wax heure boo déggee ñu ne bàyyi naa Ousmane Sonko mu bàyyi naa politique loolu moom na leer nañ ci caméra laa ko wax adduna bépp du boo bàyyi na Ousmane Sonko mooy Cheikh Thioro bàyyi na politique benn politicien boo xam ne jaral da nga mooy politique ndax moom moo ma ko jaral moo ma njëkk dugal ci làng politique yi bu ma ciy génn it moo ma ciy génn waat ndax politiciens yi ma gis ci Sénégal amul kenn koo xamante ne jaral nga ma lii may def kenn jarul ma ko damaa jàppale Ousmane Sonko loolu lu ñaaw la ñun nag fi ñu wutee yeneen politiciens yi ñaar lañ ñun li ñu wax dañu ko gëm waxuñ ngir lu neex kenn ndax jàpp ñuy noo woo léegi naan fii point de presse dañ ko yàqu ñooñu nañ nañ nañ nañ sawita tëri ñun li ñuy def dañ koo gëm te pare nañ pour joxe ci suñu bakkan bi saxaaba yi bi ñu daan jàkkaaru yéefari di xeex ñu nekk a gañe mooy au fit ñun lii bu ñu ni dañuy dem tëri amut kenn koo xamante ni ku yàlla bind nag laa mën nga ñoo xoqatal ba tax ñu reculer ci li nga def amut bu fekkee ne dañ ñoo dem laaj marché Ocass ñu jaroo xam ne ay tàppet mënuñu koo nekk te duñu ko nekk bu addunay tukki nañ arrêté seen manipulation ñun li ñuy dunde ñun ñoo koy liggéeyal suñu bopp amul kenn koo xamante ni mën ngaa nekk suñu gannaaw di ñu wax loo kii que ce soit président Ousmane Sonko mi ñu jàppale bu demee ba jot pouvoir bi li mu ci Sénégal mu jàdd ci toll na tarafataay ñun ñooy njàkk jàmmaarloo moom pour xeex ko pour mu jóge fi sëñ Bass Porokhane li mu leeral ci diggante président Ousmane Sonko ak sëñ Mountakha ku mu leerut naa fex nga war a bëggoo gis la leer nee na Ousmane Sonko bëggoon na fee bi moo ne ko nañ ba procédure bi mu ubbi jeex mooy gone yi ñu jàppoon ci kaso yooyu ñaan na Ousmane Ousmane may na ko te buñ na ngeen delluwaat Ousmane Sonko dossier bi moom dong ci déglu kilifa diine yi ndax bi mu taxawee ne du ma wujji Sénégal yëpp dégg ko dégg ko man maa njëkk annoncé wal fajar yaakaar naa yow mi yaa ma introsé woon ci Sénégal yëpp man li Ousmane Sonko dina wujji suba suba boobu ñu bëri dara nañ seen gëm ndax Ousmane Sonko li waxoon ba ci 21 heures ci le président Sonko def foyer de presse na sëñ Abdou sama sëriñ ñaan na ma dem wujji kon kooku taxaw naan respecté dana ma kuy politique homme politique boo ñëwee mun la damay rallier bul ko téye boo yeewoo ba mu la ko fekk na jël na ay bagage am ba pare ba mu na la damay dem bul ko jéem a téye ndax ba mu la ko wax fekk na lem na ay bagage am ba pare kon nekk naan damay bëgg a génn sëñ bi Ousmane Sonko diggante ma kilifa diini kilifa diini dañu ko jàppe comme doom am na ñoo xam ay kilifa lañ mën nañoo dem bu moom Touba yàlla na yéex waaye tey ay kaamil lañ doon wàcceel président nekk mbaa ngi ci jàmm

parce que toi moom mënuñoo jënd ñii loolu na tarafatalaay kon nag loolu war a bëgg mu leer loolu moo nekkoon sama point de presse ñu leeral ko